nga amoo yu làmb jeex waaye suñ la daanee làmb da lay bàyyi ndaxte làmb ji làmb déclenchement la. ñaari xale yaa ngi noonu si kër gi kaay du Aja, teman. basal kii a kii rek la Kalidou. aca aca Kalidou mi ngi noonu septième combat de la soirée Kalidou diggante Modou Anta la turandoo Modou Anta sans frontière turandoo jël si ginnaaw mu war a jàkkaarloog Ada a Ada Fass numéro 2 Kër Massar Mbolo face à Anta école Lille Balla Gaye 2 je suis borom tapisserie xayra ñoo ngi koy nuyu di nuyu ñaari soxla moom Serigne Fallou borom tapisserie xayra mbokk yi nee naa la lu mu baaxul fa tey moo si mën ay tisi moo si mën waaye tey ñaar xale yi ñoo ngi jiital pied gauche Modou Anta pied gauche Ada Fass pied droit jàppante si kaw kan moo njëkk ñoom ñaar jàppante sa kaw eh, bi combat combat la combat de déclenchement la mbokk yi ñaari espoir nañu ñaari xale nañu ñaari mbiru gox nañu ñoom ñaar ku si daan dem waaye ku si daan des ginnaaw Ada Fass ñu woon kanam ngemboo ngemb lu weex li Modou Anta woon ñu kanam ngemboo ngemb lu bële li Ada Fass moo ñu woon ginnaaw mbokk yi ngemboo ngemb lu weex la arbitre bi la wan na nee na si dugg géew bi Almasy la woon na Kalidou diggante Ada Fass numéro 2 Kër Massar Mbolo face à Modou Anta école Lille Balla Gaye Ada Fass yokkaas na Modou dagg leewtoo bi taxawaat demee nañ wel ñoom ñaar ay tondo Modou Anta ba door na ko Modou Anta looy def na wóor Ada ñaari xale yi nga xamante ni lamb dañ di bay xel door ko Modou Anta jël na ko daan ko waaw waaw daan Anta ja daan jëlal ma Modou Anta Kalidou jëlal ma Modou Anta jël ko daan ko waaw waaw fee bien fee Kalidou arbitre bi yàq suñu jël moo tagg suñu jël bi arbitre bi yàq na suñu bi eh, arbitre toog waaye lu wala mbokk yi mooy Ada Fass di doon dóor Anta daal ko jël dëpp ko naax daan ko jël bu rëy turandoo jéggi noonu nee na ka nee ka mbër la xale baa ngi noonu naka làmb bàyyi xel kàllu du kàllu kii daa bokk si làmb kàllu kii daa am cër si làmb kàllu kii làmb da koy yaakaar cey Modou Anta sans frontière bi ayca doom maa ngi lay ziar baax di la la jox sa wàccuwaay di la wax masa coono si combat bi sonn nga trop di wax waa école bi Balla Gaye sonn nañ si ñoom di leen sant ay Pape Mbës Pape Lamine nii naa ñëpp billaahi sant nga bëree sant sama waa koñ ni ma bëree stratégie rek sama coach na ma defal naag yaa ko doole yaa ko mën ay volume bu combat loolu kese la ñu ñëw bëre ko jàpp ko daan ko moom nag champion la. 3 combats 3 victoires fan nga jëm. laa xaar jeex jàmm laa xaar jeex jaam wala iwu avion bu ma si am baax na loolu laa xaar la jàppale maa ngi sant sama waa koñ di sant sama waa atelier amu seen fay di sant ku ñëpp képp ku jàpp si combat bi rek sant naa la billaahi maa ngi sant production sëñ Baara waaw waaw sëñ Baara maa sëñ Fall ñoom ñëpp sant naa leen Lamine Dieng ba États-Unis ñoom ñëpp sant naa leen sama waa koñ Ibrahima Tarkinda ñun ñëpp ak euh, paa yi nekk sama koñ ñëpp sant naa leen. nii rek jël naa ko dëgg si loxo Amar Ndiol mu jàll leen ko ñun ñëpp. billaahi.